Rewmi 24 TV bismillah daleen ak jàmm ci xibaar eh, lundi 25 mars 2024 mu mel ne présidentielle yi nga xam ne doon am ni ki démb ci 25 mars 2024 bi mu mel ne 18 candidats yëpp daal dinañuy félicité ki nga xamante ne moom mooy eh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye cinquième président ka ca desoon nag moom mooy Amadou Ba Amadou Ba nag bañoon na ni ki démb sax doon na wax ne rek day amal li nga xamante rek mooy ab déclaration waaye nag déclaration boobee daanaka rek mujjul sax sotti la mu ca waxit bariwul kon Amadou Ba mi nga xamante ne bañoon naa félicité ki nga xamante ne rek moom mooy président Diomaye Diakhar Faye moom mii di Amadou Ba daal dina koy félicité ni ki tey jii ci vingt cinq mars bi mu mel ne kon ñu bëri ña ngay rafetlu rek di wax ne kon premier tour jamono yi moom moo am ci Sénégal ci élection yi nga xamante ne doon na am ci vingt cinq mars mu mel ne kon dix huit candidats yëpp daal di lañuy accepté rek li nga xamante ne moom moo am muy premier tour bu mel ne Amadou Ba moom moo ci desoon waaye daal dinay nangu fi mu toll nii daal dinay félicité ki nga xamante ne rek moom mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye